asalaamualeykum ndaw Sénégal ndaw département de Pikine di leen pour cette mobilisation exceptionnelle malgré les rigueurs du mois de Ramadan. Dans le cadre du pacte que j'entends mettre en œuvre à la tête de l'État du Sénégal, j'ai décidé de signer un pacte particulier avec la jeunesse du pays mission bi ma leen di confier bokk na ci ñu aar frontière u Sénégal ba kenn du joge ci biti ñëw di yàq stabilité ak sécurité wu Sénégal ci yéen ndawu Sénégal maa ngi xaar ñu aar moomeelu Sénégal aar nos ressources aar suñu géej aar suñu pétrole aar suñu gaz aar suñuy central électrique aar suñu environnement ba mu sell pour qu'on ait un cadre de vie adéquat c'est une mission très large moo tax ma defar ci wet gi un programme spécial pour accompagner leen jàppale leen former leen équiper leen financer leen waajtaay bi nag ci tuut tànk yi lay doore li ñuy wax la politique de la petite enfance parce que ñetti at yu njëkk ci dund nit ki am na loo xam ni bu amee tolof tolof dana jafe repare ci kanamam moo tax lépp lu jëm ci dund gi dund gu baax lépp lu jëm ci paj mu baax muy santé lépp lu jëm ci capacité de sport muy tàggat yaram dinañu ci taxaw pour gunge ci ndawu Sénégal je sais que vous par des difficultés insurmontables, mais avec une volonté ferme, une formation de qualité, une capacité physique d'exception. Je suis persuadé que vous irez à l'assaut du monde. Je constate vos performances dans les Olympiades de mathématiques comme dans le domaine du sport. Si nous généralisons cela, je suis convaincu que le prochain Einstein du monde sortira de l'Afrique et en particulier du Sénégal.